hamdi wa sukri liman kulli bihi saara law ridan duna shuqtin inda sarsara 4h30 Touba Darou Manane résidence Cheikhoul Khadim Sarsara édition 2021 mbokk yi xam ngeen ne wàccaay ci la ñu nekk nii ànd ak délégation ahlu café bu soxna maam Issa Mbacké jiite ñu fas yéene dem fële ca Mauritanie ba nga xamante ni fële Serigne Touba Xaadim Rasool waxe woon ci maanaam ne képp koo xam ne rek koo fa fekk ziar ko rek di nga tàqaloo bàkkaar àdduna ak alaxira mbokk yi délégation bi ngeen gis noonu noonu ñooy waaj di dugg ci biis bi soxna si mu ngi tamit waaj di génn xam ngeen ne noonu léegi mu génn incha allahu rabbi ci coordination bi ñu ci ànd ak euh, Cheikh Abdoulaye Dieye moom mi nga xam ne moom moo yore coordination ak délégation bi di leen rappel ñuy dugg mbokk yi ren édition spéciale bi ñu duppee ko Serigne Massamba Mbacké di koo xam ne ni maanaam mën na ne Serigne Touba wéyjuram la magam la ndax ku ne xam na ne digganteem ñoom ñaar waaye. fédération bi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca Mauritanie am ci kontante bu baax a baax ci biñ ko tuddee ma Massamba ndax soxna si nga xam ne yàgg na ànd ak ñoom ci événement yu bëri rawatina ci ziar Sarsara bi mbokk yi xam ngeen ne duñu dana leen toppal trajet bi ñu daa ñu ko tàmbalee fii nga xam ne moom mooy Daaru Marnaan bu ñu yeggee ca Louga daañu fa am benn escale ci benn daayira bu nekk foofu noonu bu buñ fa jugee daanu jàll fi nga xam ne moom mooy Rosso Sénégal dalandi fa bu ko defee beneen daayira bu fa nekk nag dalal euh, délégation bi waaye ànd ceeg nag ñi nga xam ne ñoom ñoo jugee ba Ndakaaru ci ziar Sarsara édition 2021 bi mbokk yi xam naa ne du yàgg dara rek ñu départ gis ngeen mbokk yi formalité yi jeex na Cheikh Abdoulaye Dieye gis ngeen gis noonu moom moo toog di def dernier réglage yi bagage yi ak ahlu kafe ñi nga xam ne ñoom ñooy yore kafe gi ñoom ñëpp mat na kon rek duñ def lu dul ànd ak yéen ci li nga xam ne moom mooy am ci yoon bi yëpp incha allahu rabbi ci seen chaîne yi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak soxna maam Issa Mbacké ahlu café mboolem fédération ahlu café nga xam ne léegi ONG la fas yéene dem nag fa li nga xam ne moom mooy ca Mauritanie jërë ngeen jëf man laa sharika lahu wa fi wa ma لذيك يا الله وجاتك اليوم يا رمان منتديا فوزي بما تتوفي دنياك يا الله أنت رئيم راسي أجو برحمتي ألا ألاقي درا منك يا الله أزاري ملاسي أرجو برحمتي ألا ألاقي درا منك يا الله مليك يميني وقل بزال يا مليك première Louga moom mooy sunu première escale bi nga xam ne jàpp nañ ko ci yoon bi jëm Sarsara at mu jot ñi leen ko daan defee ànd ceeg euh, délégation bi nga xam ne ñoo doon jóge dakaar ñu ñëw fii nga xam ne moom mooy bërëb bi daan fi fekk nak waa Aynu Rahmati euh, ñoom soxna Njawa ak ñi nga xam ne ñoom ñoo bokkal bërëb bi soxna euh, sunu yaay jooju sàmb nga xam ne tamit ñoom ñoo daan defar ay ndékki di ko baaxee soxna si waaye ren ji xat-xataayu jamono ji moo tax xam naa ne mbokk yi dañ ciy tënk ay kàddu rek ci ñëw ñi nga xam ne ñoom ñoo indi xéewal gi jox ko soxna si ñu ànd ak ñoom ci li nga xam ne moom mooy bis bi kon mbokk yi dañuy topp ak yéen ba tey ci trajet bi nga xam ne moom moo jëm Sarsara ilaa Nouakchott ala مليك يميني وقل بزول يا مليك بلا إسان بن بيجو دل منك يا الله soxna si asalaamaaleykum wa rahmatullah ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di rafetlu bis bi nga xam ne at mu ne dañ koy teewe ci eh, soxna Njaw Sëy mii nga xam ni moo tax nun ñëpp nu fiy daje di indi ay xéewal di ko jox soxna si nu kontaan ci lool di wax ne yàlla nañ ko fekke ay at yu baree baree baree bare di ko ñaana lépp li muy liggéey ci sëñ Touba rek yàlla nañ ko bokk ñun ñëpp di ci gërëm nag sunu rakk ji di soxna Njaw Sey nga xam ne buñ ko xamee tey yàlla ak moom a tax di ñaanal ñi jàpp yoon wi te sëñ soxna Aïssa Mbacke jiite ko yàlla na teg leen si yoonu jàmm dem ak jàmm dikk ak jàmm la ñuy sàkk lépp sëñ borom defal leen lu kawe seen jot jamaan mbégte rek yàlla dimbale ñu fekke liggéey bi tey ñaan rek yàlla ñu yàlla dimbale bañ ànd ak yéen liggéey dem Sarsar loolu la lañuy ñaan. ndax yoonu sëñ Touba moom loo ci def rek day jëm kanam waaye du jëm gannaaw waaw di sant maam Issa Mbacke mi te xam ne lépp lu ma am ci Sarsara rek mooma kon nag maa ngi koy sant bu baax a baax. ndékki yeet wax dëgg yàlla xeem naa ko lool su ma sañoon daa bette rek waaye bu ma sañoon nag laay daaneel walla gileem waaye nag maa ngi ñaan ci doole sëñ Touba yal nañu yàlla dimbali boo déwénee mu gën a neex gën a bari maa ngi sant bu baax di sant maam Issa Mbacke mi. day liggéeyal eh, eh, waa kër sëñ rek day liggéeyal sëriñ Touba di liggéeyal waa kër sëriñ Touba ndax man soxna si awma payam awma payam ndax naga ma mënoon naa fekk bu mbooloo mi baree nii mu am feneen fu mu dali ndax man mii kat xañ na ku xeebu laa waaye moom xeebu ma. te jox na ma loo defal na ma loo xam ne mënu ma koo fay te giñ naa ci Cheikh Abdou Lahat mii may waxe fii nii mu di ko dégg ca daayira kamil su ma amoon gëlee ma nag dinaa ko ko reyal te loolu laay ñaan. waaw Mbacke mi sunu yaakaar te ëllëg di bu baax ci ñoom soxna Njawa Sey mu ànd ko wa Ayun Rahmati ak waa Touba ci kanam mu doon loo xam jëf joo xam dañ ko def ngir jëm sëñ Touba képp ndax moom mi ba ñuy xamante gisante wuñ ci rajo télé rek la ma gis daal damay sopp ngir jëm sëñ Touba. dañ ko njëkkee wax ne ko dañuy ñëw Sarsar la ne mooy indi ndépp moom soxna Aïda Samb Louga ñoom ñoom fi tas at mu jot ak soxna moo nekk fii taalibe bi Cheikh Abdoul Ahad ñi ñu fi defar ay ndékki yi yéeme buñ ci masaan indi ndékki waa garas ñëpp ay ndékki tey nag yoon wi dafa gàtt rek ñu xam ne comme dañoo def délégation di siyaare ji rek di wàññi ko moo tax mu demee ne waaye teewut lañ daan indi lépp indi nañ ko te biñ leen ko waxee léegi matul une semaine kon parce que mënut a passé loolu kon leen sant bu waa am nañ mbégte bu baax a baax di leen ñaanal tey dafa ma wax daw sama yaram comme soxna sëñ bi wax na lool kon alhamdulilahi rabbi alamin kon na nga jàpp ni bu déwénee ñoo koy ànd incha allah yéen ñëpp ndax moom pour ndigal taxa taxa naa taxa naaje di nga dabe ndax lépp li la fi woon lépp di déglu ndigal rek ndax bëggoon ngaa dem bu yàgg waaye ndigal nga doon déglu comme am nga ko dinañ ànd incha allah ndax ñun ñii ànd ñun ñëpp ndigal la ñuy dox ñu ngi leen di sant di leen gërëm sant délégation bi ñu àndal li ñëpp di ñaan teewewaat ko ay déwén déwén ñëpp fekke ko kenn bañ a wopp kenn bañ a manqué yàlla rek ndax am na ñuñ fi àndaloon te nekkuñu fi ñu ne defuñu lu tax yàlla bañu fi kon nañ leen ñaanal yàlla yërëm leen te yeexam ñu ne fekkewaat ko ay déwén déwén kenn bañ a wopp kenn bañ a manqué am nañ mbégte lool ñu ngi ñaan rek Sarsar yi ku fi teew rek lañ ci yàlla na yàlla fekk say aajo yàlla wattali min kasu lan baaxamak alate talakasu riyaayat وأعبد الله لغوت أثمان الذي يعمل أموره وغوت لي رصايا رزاق يا الله فتات لي كل بعث بن كنت ذاتئا لأوليائك يا فتاة يا الله ألم تنل قيباء تعثت منتميئا أتى الأليم لاسي ألم يا الله خبرت يا قابل أساء وانصرفت لخير نبياك الأدار يا الله بذلك يا باسط الأمان جعل لي بريدا فاذكر مبعثة دارين يا الله بذلك يا باسط أعمال لي بريضا فاذكر مبعثة دارين يا الله قبلت يا قابل أداء لي وما لو لخير نهوي بقبل منك يا الله رضاك يا دارين مركباتي بلا انقضاء بفضل منك يا الله soxna Isa nag yàlla moo nu booleeg moom mais bu ñu nekkeeg moom ak léegi ci dëgg la ñuy dox ki jëm saar sar saara di képp dëkk jëm ci sëñ Touba boo ma dégalee maa nekk ci dex gi sëñ Mourtada da daan jaar ci man yal na leen yàlla yóbbu ci jàmm ngeen fekk fa jàmm dellu si ci jàmm bisimilah rahmaani rahiim maa ngi dellu nag ci dex gi laay jaaraat dellu mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat yéen ñi fas yéene ànd ak ñun ci seen euh, trajet bi nga xam ne donc moom mooy Ila Sarsara xam ngeen ni diggante bi ñu nekk nag moom mooy diggante rosa Mauritanie ak Rosso Sénégal ci bac bi la ñu nekk nii ñu ngi ci ñaari waxtu yu tegal fanweeri simila moom la ñuy traversé fas yéene dem ca li nga xam ne moom mooy république islamique Mauritanie mbokk yi soxna si moom la ñu àndal noonu gis ngeen sànq ki ñu doon àndal ci li nga xam ne moom moo donc ci euh, muy maître nageur moom mi nga xam ne moom moo nekk ci dex gi mu wax fi jamonoy Serigne Mourtada ba léegi mu ngi fas yéene ànd ak mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom ñoo ñëw fas yéene dem Mauritanie ci ziar ji. Euh, li ñu jóge sànq xam ngeen ko moom mooy ci ay formalité yoo xam ne nii dañu ko doon remplir ci diggante li nga xam ne moom moo dox ñaari réew yi xam ngeen ne ku ci nekk rek territoire boo fay dugg dafa am ay normes yoo fay duggee ba tax na. Euh, nii ñu àndeek ñoom nag wax dëgg yàlla yomb na tey amul benn jafe-jafe ndax heure bi daan na fekk daawuñu jéggi te tey nag ñi nga xam ne noonu moom la ñu def nii moom la ñu jéggi damay daal di ànd ak Fallou ñu dégg ay kàddu yoo xam ne nii rek mi ngi bawoo ci soxna si bi nga xam ne tey ñi ngi fii ci bac bi bac bi nga xam ne moom la ñu nekk nii ñi ngi ci tey waxtu wi nga xam ne tey teel na noo jéggi na lan moo war waral soppite gi soxna si ak looy yëg jamono ji waaw ah, Seydou maa ngi lay sant bu baax di am mbégte bu baax di sant yàlla bu baax di jëlee ci yonente bi sallallahu di santaat Serigne Touba Mbacke mi suñu yaakaar tey ak ëllëg di yeesalaat bu baax nag suñu yëbal ci Cheikh Massamba mi suñu buntu ci bi ndax tey moo aaye te ma Massamba dafa am ñetti cër ci Serigne Touba boo ne rakam la muy dëgg nga ne taalibeem la muy dëgg nga ne doomam la muy dëgg kon tey ñetti cër yëpp la sëñ bi di feeñal fi ndax tey defe woon nañ du yomb ñëpp jaaxale woon na ñëpp tiitoon nañ waaye Serigne Touba ubbi na buntu yëpp ubbi na yoon yëpp kon nañ ñaan dem ci bisimilah rahmaani ñu ci alhamdulilah rabbil alamin te xam ne sëñ Touba nee na sama tay ju ne gàccal sama dem mu mel ne am na délégation ba boo xam ne daan nga ànd ak ñoom mooy soxna maam Faamalo ñi ngi ci gannaaw di ñëw ñoom it ndax dafa am ay jafe-jafe yu ñu amoon wala lu waral loolu waaw am nañ jafe-jafe oto moom noonu la rek moom da ngay dem rek waaye doo xam fu muy paane waaye alhamdulilah dépanne nañ ba ni ngi ñëw yaakaar na war nañu egsi sax dax na feer bi bu delluwaatee ñoom moo leen di jëlee incha allah ma nekk ci biir moom mooy daam suñu chauffeur bi xanaa rek damay def lu dul ànd ki nga xam ne donc ñoom ñooy euh, Cheikh Abdoulaye Dieye Euh, ñi ngi nag euh, fii nga xam ne moom la ñu nekkal moom la ñu nekkal nii Cheikh Abdoulaye Dieye ci ay kàddu yu néew rek euh, xam naa ne du yàgg sax Cheikh Abdoulaye jéggi nañu tey ci waxtu boo xam ne ni waxtu gën a teel la diggante bi nii lan moo waral lu ni mel. ah waaw Sidi xanaa sant sëñ Tuubaa rek eh, lépp dañ koy delloo sëñ bi rek ndax wax dëgg yàlla bi nu ñëwee fii ci frontière bi dañu fa fekk vraiment commissaire bu baax boo xamante ni bii tam daf maa wax ne ma jot jot na ordre pour xam ne délégation bi mi ngi ñëw. kon nañu nañ identifier mbooloo mi rek mu bàyyi leen ñu jàll loolu moo tax wax dëgg jàll bi def nañ ko facilement amul benn jafe-jafe. ko may jërëjëf maam ba ay dox leen dox doxal. daa mel ni jaay mu ne kii téye wu ñu woon kii téye wu ñu woon. dañoo amee ثباتي بلا انقفال بفضلك يا الله أنت أمري ثلاثي لا تطعي خلا ويسا واحد بل فيك يا الله أنت المسل لاسي سلا لي ستي الانس والجن seytaanu yàllaaw anta samiu laasi naajitu woo samaanan wa bil masaaraatili qad jutta yàllaaw anta albasiiru laasi li xaada jumlatama lixtarta dunya wa uxra min